dafay indi koom-koom bu rëy rëy rëy boo xam ne kenn du sonn dana uute lool ak li nga xam ne moo fa nekkoon parce que géej gi rek 7 kilomètres la woon juróom-ñaari kilomètres soo jëlee sa oto ñëw balaa ngaa jàll bag lu mu néew néew di fa am ñetti waxtu ñeent nga soog a mën a jàll bag te it ah, boole ko coono boo xam ne bii dafa bëri yenu bagage nit fay oto fay gaal fay lépp fay ci loolu lañ doon dund biñ demee nag ba xam ne léegi. mën nañoo suñu président yi am nañu pexe fexe fexe fexe ba yeneen réew yi fexe ba def ko euh, pont ko def ko tali oto yi dafa jaar mooy yoonu CEDEAO boo xam ne bi réew yëpp ko bokk parce que du Sénégal rek kon nga xam ne loolu koom-koom bu bëri jàpp naa ne ñun bu fekkoon ne dañuy xëy di am un million par jour léegi gëm naa ne danañ xëy di am dix millions par jour waaw kon mel na ni yokku na. intégration pont bi wax naa ko sécurité bi. nee naa leen képp ku fa indi photo na nekk photo Macky Sall bu mu ànd ak aadama Baro wala photo Adama Baro bu mu ànd ak Macky sàll wala photo aadama Baro kese wala photo Macky sàll kese wala banderolu Macky sàll wala pancarte boo xam ne euh, photo Macky Sall la képp ku fa indi lu dul loolu su ñëwee nañ ko téye bu mu dugg parce que li tax Gàmbi dañ leen di jàppale dañ di suñuy nawle di suñuy naataango te ñoom xamuñu loolu sénégalais yi jógee fi kenn ku nekk bugg a wane boppam yóbbu ay t-shirt ak pancarte ca biir Farafeñe te ñun li ñuy def xajul Farafeñe ci ñun la xej duñ leen bàyyi ñu di fa dugg di ko def dañ koo tere ku indi photo Adama baroon nag loolu lañ bëgg ku indi photo Macky sàll loolu lañ bëgg waaye lu dul ñaari photo yooyu soxlawuñ ko fa te ñu jàppale euh, Gambiens yi ak Sénégalais yi ñëpp bokk ndey bokk baay kulóoru parti bañ faa feeñ kulóoru juddu bañ faa feeñ kulóoru daraja bañ faa feeñ lépp ñu jël ko jox ko waa Farafeñe yi ndax suñ leen ko defalee Macky Sall lañ ko defal parce que ku ne xam na ne ndem Macky Sall la waa Gambie gërëm ci bag bi asuma waa Sénégal yi Moustapha Niass président assemblée nationale comme fu mu toll nii euh, président am nga ñu ngi jëm ci élection présidentielle. waaw xam nañ ne Moustapha Niass moom lañ joxoon dénkoon lépp lu jëm ci gis nañ ne xawoon ngeen ci xëccoo mhm. joxe sama parrainage sax joxuma ko woon Aymerou Gningue ko jox. joxoo ko ko woon waaye Aymerou Gningue nag moom la ko yóbbu yóbbuloon. Mhm. mu gërëm ma defal Aymerou décharge. Mhm. boole ko décharge bu Aymerou bii jox ma ko. gërëm ma félicité ma ci waaw après loolu nga jubóog Moustapha Niass. ma wëññee ko waaw may jubóog moom cent pour cent. fu ngeen jaar. xanaa euh, yàlla moo ko doxal. déedéet. Ah. dafa nga foo ni. waaw yow mosoo nangu topp ci ginnaaw Moustapha Niass. waaw loolu nag mbañ kenn du ci déggoo ñu naan la xeex kenn du ci dëkk ak jooy duñ ci yàgg. kon mën nañu am njort ne présidentielle yi yéenay ànd def campagne. est-ce que du fu mu sumee daal lam sax du maa koy téye. yaay téye Moustapha Niass daal ci campagne bi waaw. Ah.